voilà borom euh, jàmbaar wrestling mi ngi noonu le fils des Parcelles Assainies xaritu Franc xaritu Gora doomu ndeyu Modou Lo Junior ah waa parcelle doomu parcelle la ngi nii na ngi nii bu rëy incha allah Papa Sow ngi noonu Sow pour la ardo borom nag ak meew la ñuy woy ma nga dugg ci bopp bi la concentration du champion on l'appelait le piment de Fass maintenant c'est le fils des Parcelles Assainies c'est le piment de fas mi ngi noonu xoolal sañse bi xoolal sañse bi daal di na la tudd yow xamu nu mu tuddee xoolal sañse bi xoolal <laughs> ay borom jàmm la nag ñoom ñaar ñëpp ay borom jàmm lañu ay borom baax lañu ndeysaan mi ngi noonu le piment des Parcelles Assainies le fils des Parcelles Assainies doomu Ndakaaru ngoog bés bu rëy Papa Sow il avec ses amis avec euh, ki nga xam moom mooy école de lutte bi jàmbaar wrestling